la ilaha illallah la ilaha illallah auzu billahi mina sheytaani rajim barki maam Cheikh Rahma Fall mbokki jullit mbokki taalibe yéen ñuy topp suñu site bi di Lamp leeral Touba ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal di jël nuyoo ziar di ci jiital Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaan suñu borom te ko fi yàggal loolu tam ànd ko wér waaye noonu lañ koy ñaanale muritam bu mag ba sëriñ Amdi Fall moom Cheikh Moudou Mbenda di ko ñaan suñu borom dala ko fi yàgg loolu ta ànd ko waaye di ñaanal sëriñ suñu borom dala ko fi yàgg loolu ta ànd ko wér waaye di saar suñu bunt nag di sëriñ moom Cheikh Abdou di ko moom Cheikh Abdou Fall moom Cheikh Mor Talla ginnaaw bañ leen nuyoo ziar yi ñun ñuy topp si bi Lamp Fall Leeral Touba tey ji ñu ngi fii ci marché Ocass ci ndigal li nga xamante ni Cheikh jox na ko Serigne Amdi Fall Modou Mbenda muy ndigal loo xamante ni ngi bàyyi woon ci Alaaji Baara ñëw ci Serigne Cheikh Fall jëmb muy mbalem Touba mu mel ni tey jii Serigne Serigne am Serigne Amdi mu Modou Mbenda moo moo teewee jataayu Cheikh Ibra waaye Cheikh Mamadou Mountakha moo teewee jataayu Serigne Touba muy liggéey boo xamante ni liggéey bu fi yàgg la mu mel ni tey jii nag liggéey bi daa doon ñaari liggéey Serigne Ibrahima ndax dañoo boole bale ak samp ay barrière muy barrière yi nga xamante ne nii moo war a barrière diggante tali bi ak ak ak tali bi marché Ocass bi nga xam dafa jaar ci biir tali bi te sëriñ bi bëgg tali bi libre ngir ku amati soxla mën a ci côté bi man fee jaar jàll te doo am te doo doo am ak benn jafe-jafe ñi nga xam ñooy jaaykat yi. kon na tey jii liggéey bi loolu la mu mel ni liggéey bi tam barrière itam ñu ngi ko santoon ñi nga xam ne mooy kuréel 2 yi nga xamante ni nii ñoo ñoo ñoo commencé ñoom lañ jox corniche bi. nga xam ne ñoom seen wàll moo commencé première garage ba àgg ko su belal ci njiital sëriñ Daam Sooda nga xam ne kuréel googu waa kër sëriñ Mourou Mbenda Fall ñoo ko ànd ak sëriñ waa kër Cheikh Mortala ak lenn ci seex yi kuréel googu ñoom la sëñ bi joxoon ndigal ñoom bu ñu xëyee tey ji mbale mi ñoom ñu xëy xëy di samp barrière yi mu mel ne sëñ Ibrahima barrière yi bi ñu xëyee gars yi dal nañ ci te dafa am lu yéeme lu ci xew mooy ban xëyee ba ngeen yàlla mi ngi taw mhm. mel ne kon murit yi moom Baay Faal moom ndigal ci la ñuy wéy ndax taw bi ci biir liggéey la leen fekk ndax day melni ki nga xam moy mooy ndox mi mom bi Mikaël mi wàcc ndox mi ndigal la jottu sa bu jidi ndigal ndigal lol da koy jëfé waye Baye Fall yi tamit ndigal ndigal liñ am dañ koy jëfé nga melni kon ñom day melni kon loolu ñoo ñoo si ñoo seen way ba tax na kon dal ban xëyee ba nëga Baye Fall ci liggéey bi liñ fi jot indi ci barrière sab gas nañ ko ba samp ko ñi ngi ni diko diko diko cimenter seigne Ibrahima waaw rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim mbokk julidi mbokk talibey Euh, ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare waaye di leen nuyoo nag fii si Touba euh, marché Ocass euh, di jiital siyaar bi nag comme ni nga ko waxee rek Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne murid yi saa yu ñu xëyee rek dañ koy ñaanal gudd fan ku wér waaye murid bu mag bi nag di sëriñam di Fall mu sëriñ Mbuudu Fall Mbenda waaye noonu la ñuy siyaaree nag sunu buntu muy sëriñ Cheikh Mor mu sëriñ Abdou Sis mu sëriñ Mor waaye jaaree ko nag si Seydina Aline Fall Bada moom sëriñ Abdou Sis Fall waaye di siyaare baax na njabootu sëriñ Abdou Sis Fall góor gi ak gu jigéen bi Euh, di siyaare baax na sëñ Abdou Rokhaya Fall mi xalifab sëñ Mortala ak mboolem njabootu sëñ Mortala Fall gépp rek euh, ñuy wax ne noo ngi fii tey si marché ocas si eh, benn fanu safar euh, di ndigal loo xam si nii comme ni nga ko waxee léegi rek dafa bàyyi ko woon si Alaaji Baara moom Serigne Fallou bi mu fi doonee xalifa général de Mouride joxoon ko Serigne Cheikh Fall jëmb moom Cheikh Moudou Moussa Fall mu doon wéyal liggéey bi ba tey jii am di Fall mu suñ Moudou Fall Mbenda toogee si jataayu lalu maam Cheikh Ibrahima Fall nu koy ñaanal baax suñu boroom yàggal ko fi waaye comme ni nga ko waxee nag euh, sëñ maam góor di siyaare bu baax nag euh, mboolem murid yi ñu topp si réew mi ak si bitim réew ndax ku ne xam na ne euh, nii nu taxawee ak mbubb mii nu sor rek noo de wan ne la jippi suba ba yàlla jée nga wàcc ay taw waaye comme ni nga ko waxee rek comme Mikaayil miy wàcc taw moom diggal rek la si am mm-hmm. rawatina nag njabootu Cheikh ne baatum diggal moom la ñu nooyee di siyaar mboolem koo xam ne yaa ñu topp si réew mi comme ni ko waxee léegi rek ñu ngi nii ginnaaw gasaas bi ndax ku ne xam na ne barrières yi Euh, sëñ daam Soda dafa waxoon ne tey ñu tàmbalee ko liggéey bi mu bokk ak bis bi nga xam ne mooy bisu mbale mi nga xam ne li ëpp si njabootu Cheikh Ibra gi donte tam bëri lu ëpp si njabootu Cheikh Ibra ñoom ñëpp ñu ngi ñëw fii tey si marché Ocass ngir di ko setalaale ndax ku ne xam ne marché Ocass moom mooy son bi nga xam si nii fi la mbalit fekk baax mm-hmm. euh, ñuy ñaanal baax nag euh, Serigne Fallilou Fall jëwriñu Serigne Modou Minta waaye di ko jaare nag si Cheikh Moustapha Fall Fallilu ak mboolem njabootu suñu modunité gépp rek mu mel ne daal noo fii si biir marché ocas euh, fa yéene ànd ak liggéey bi nga xam ne si njabootu Cheikh Ibra gi noo ngi koy liggéey fii si marché Ocass euh, ku gis njabootu suñ mortalaat nga xam ne si jiital Serigne Cheikh Sarr mi nga xam ne moo jiite euh, kuréel bi nga xam ne ñoom lañ tànnoon yabal leen si liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha joxoon na ko njabootu Cheikh Ibra Fall gi ñoo koy ñoom ñëpp ñu ngi nii si ginnaaw Euh, ku mel ne njabootu suñu Cheikh Fall Khadim ñu koy ñaanal baax nag nga xam ne moo mag si sëti suñ mortaale yi muy suñ Cheikh Fall Khadim di ko ñaanal baax suñu borom yàggalal na ko fi waaye noonu la ñuy siyaaree nag suñ maam góor sëriñ Mbacke Ndiaye Baara mi nga xam ne mooy jëwri nii kër suñ mortaale Fall waaye di siyaare mbokk mbokk mbokk yëpp rek moo wala nii laal lañ ko fas yéene ànd ak yéen rek euh, mboolem loo xam si ne rek am na fii si marché occasion rek ñu fas yéene koo digtal murid yi incha allahu rabbi jërëjëf sëñ Ibrahima comme noonu lay demee waaye ñu fàttali leen tamit euh, sëriñ maam Lam faal moom sëriñ Bassir Fall Xadim Mbodj moom maam Cheikh Ibrahima moom Cheikh Mor moom maam Cheikh Ibrahima moom itam noonu la ko àndee mbokki taalibe ci Daaru Manaan mu mel ni bu ñu jógee fii itam foofu danañ fa yegg ndax moom itam liggéey bu am solo lay liggéey ci mbale mi nga xamante ne nii mooy mbalem Touba nga xam ne lépp luy tund Daaru Manaan maam Lam Fall mooy ànd ak mooy ànd ak taalibe yi bale ko ba nga xamante ne ni mel na ni nga xam ne noonu ko sëñ ba bëggee kon daal ni ko sëñ Ibrahima noonu nga ko waxee rek lépp loo xamante ne nii tukkee na fii ci liggéey bi incha allahu rabi leen ko mën a seetaan fii seen seen bi Lamp Fall Léral Touba incha allahu rabi waaw ah, baax na kon sëñ Moustapha Sarr si bi dañuy jàll si kaw rek jël fa ay quelques kii rek ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñëw nan rek incha allahu rabi suuf ay saako ay xeer ak yëpp ay ne ci bidon biir ay bidon lu kenn xamul daal dëgg fa yàllam daal nit ñi ko def dong moo ko mën a euh, jàppale pour ndox mi bu tawee yàlla dogal mu mën a dem ci canal bu mag bi mën a versé ji waaye wax dëgg yàlla mi yéeme ne lool yéeme ne lool boo koy yéeme wax dëgg yàlla waaw loolu laa amoon lu ma ci wax nag. mu mel ne bu ñu gisee taxawaay bi ngeen taxawaay ban mandarga euh, gis nañ association bi nii ban association la. association marchand ambulant euh, tablier bu Touba marché kon murid yi leen topp si réew mi si bitim war nañoo xam ne kon ambulant yi nekk fii kenn gënu a gëm sëriñ bi moom déedéet ñun de kenn gënuñu koo gëm benn ci man mi mu mel ne dañoo gis euh, xalif bi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha sant sëñ Amdi Fall Modou Mbenn pour ñu def fii ay barrières yoo xam si nii tali bi dina mën a libre yéen ñi nga xam ne yen a doon ay ambulant tey te ngeen nekk fii te jiite ndaw ñi ban taxawaay ngeen si am ah xanaa bu fekkee loolu moo gën tamit ñu xool nu mu gën a organiser bi nu mu a baaxee ci noonu rek noonu laa ko gisee man. waaw ah, ndeysaan jërëjëf Baye Fall ñu ngi leen si yéen baax di la jaajëfal yaa ngi ànd ak bi Lamp Fall leeral Touba ci biir réew bitim réew ñu gis la nii nga ne ci biir canal bi nii liggéey la boo xamante ni nii maanaam ndigal sëñ bi rek moo mën a tax nga def lii ban pas-pas nga am ak ban yëg-yëg ba tax nga ñëw futtee dugg ci canal bi ndax ku xam ne lii ngay def nii ànd maanaam maanaam ndigal rek moo moo moo tax nga di ko def ah liggéeyal bi rek suñu jaamu moo ñu ko jaral rek donc li suñu ko def noonu wallaahi naa sim suñu jaamu moo ñu ko jaral wallaahi wallaahi maa mënut a wax nag mais liggéey sëñ bi rek moo tax a dugg fii barke sëñ Tuubaa nan ngay soññ mbokk yi nga xamante ni bu sëñ bi joxee ndigal ñoom ñu ne seen seen seen itee bopp ah ñooñu waaye kaa duñ ay murit waaye kaa parce que nga nekk murit sëñ suñu tax a joxe ndigal loo mën a jàppar war nga mën a bàyyi dem si la parce que li yàggut léegi mu jeex ku nekk del sa yitte bu sëñ bi wootee lu mën a jàpp war nga ko mën a ñoo liggéeyal sëñ bi ndax sëñ ñu ko jaral wala yaa sim jërëjëf jërëjëf rafet am solo jërëjëf taw ba nag ni ñi ngi ànd ak Lamp Fall leeral Touba fii si marché Ocass si ndigal li nga xam ni eh, ku xam tey benn fanu safar bu teroo rek njabootu Cheikh ibrahim Fall gi ñu ngi fi waaye ñu feggoo Serigne Talla sek moom Cheikh Modou kan sin Baye Fall way di ñaanal baax na Serigne badakan mu Cheikh Modou kan sin Baye Fall mu serigne Modou marem kan moom mam Cheikh ibrahim Fall suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ak serigne Lamp kan jeurin mbollem njabootu Cheikh Modou kan sin Baye Talla tay melni yaangi ci ngi si biir waar wi euh ku min liggey bi ben fanu safar xam nga njabootu Cheikh ibrahim Fall géegi fi wa lol da mom deug la comme niñ ko daan def rek di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg lu fi loolu te wér di ñaanal sëñ Moudou Mbenda mu yàgg fi loolu te wér di njaboot ñaanal njabootu ko maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di leen ziar di leen liggéey bi ngeen nekk nii yàlla na ngeen ci am ndam ci doole Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Moudou Kane Sine ñun kenn ku ne xam ne amul lu sëñ Moudou Kane Sine moom sëñ Moudou ma moom sëñ Ili Fall Bal Moudou dina kenn ku ne xam ne sëñ Moudou Kane maam ñaayu xarala woon te képp koo xam ne maanaam fekk nga ko ci waaru di ko bàyyi xel kon bu yàlla dogalee ñu bokk ci sama borom dogal tey ñu ko dajeeg ñun dañu laaj ci waaru ndigal yi dinañ ci sawar lool ndax yoonu Baye Fall moom nii la rek jëf la jëf jël lu waaye jëf la ne yaa ko moom yoon wi nag liggéey la ñukku la ak ñuqi ak ñukk ak joxe kon ñu ngi ñaan ci doole Cheikh Ibrahima Fall yéen yàlla na leen yàlla yàggal barke Baye Cheikh Ndaw ndax lépp lu waay di waxkat na ko dal ci jëmm ji barke Baye Assane Ndaw barke Baye Ndaw kon ñu ngi ñaan ci barke maam Cheikh Fall na yàlla guddal seen fan wéral seen cër Baye Fall moom ndigal rek lépp lu laay mën a wax lu ndigal amul njëriñ ndigal nag maam sarafa daaw naa caabi la ko ëppee yeesu yéesu te boko ko na nga yak kanar ba ñun nak la dalon dof ba dañu dal ndax dof bi dañ ko ne gettu suukar ak ci loolu gën a mun ni muraake ñu loolu ndigal ci kër señ muru kansin gettu gerte suukar ak cere lo ci gëna mu mun ni muraake waaw wër na maam serafal di ñaanal jëwriñ ñi ñëpp bàyyiwun kenn señ am di fall señ cheikh ngunda fall bu ñu limé man nañu baña matal di ñaanal señ mudu mbenda bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax a di ñaanal jëwriñ yëpp ñen andal ànd sàmm war may tubaay ñu ngi leen di ñaanal liggéey bi daal ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikh Moudou Kane Baye Fall barke Seyna Alioune Fall borom Mbaor yàlla na yëg rëkk ni aw yoon waaw di ñaanal Serigne Bada Fall moom sëñ Assane Fall moom sëñ Aliou Fall Mbaor ndax moom mooy suñu jëwriñ ci bunt bi ci yoon wi ñu nekk di liggéeyal sëñ Touba sëñ Moudou Kane Sine nag yàlla ñu boole woon ak moom ñun amul lu sëñ Moudou Kane mbër ka la jàggaruur maa ni kan jàllo jiidi sëñ sëñ Gunde Dàmb ci jumaay Sine bàyyi sëñ Barak Lamp bàyyi Soxna Njaay bàyyi Soxna Mati bàyyi Sëriñ Dàmb kon ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikh Moudou Kane seen liggéey bi yàlla na yàgg barke Sina Alioune barke Mame Serap Fall barke Cheikh Serif Assane yàlla na ñëpp am jàmm gis nga dàmb ak jën moom ku ma gis nga jaay ci jën naa la alamaan mbalit rek la mën a yan laa def nii ba mu fees ah. ku fi jaay rek lay mën a yan bu ci kenn jaay ci jën waaw ah, jërëjëf waaye jërëjëf Serigne Talla Seck moom Cheikh Modou Kane Sine Baye Fall ah, mu mel ne ñi ngi jàkkaarloo Serigne Cheikh Fall Baye góor moom Serigne di Fall Modou di jàmbaar lool xam ne seetaanul liggéeyu maamam bi waaye ku ñëw fii rek nga xool ne marché Ocass moom xaw naa yéeme lool fi mu toll nii. waaw ah, ñu ngi ziar baax a baax. ki ngeen feggool di wax mooy suñu Cheikh Fall Baye bu góor. moom suñu am di Modou mi fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall. moom moom moom moom moom lañ feggool nii muy suñu kilifa. Eh, di suñu jëwriñ di wax ne ndigal li comme noonu ko ko waxee rek. di jugee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. tàbbi ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbène di xalifa général de Baye Fall. mu mu mu mu yegge ko njabootu boppam gii chaque at at mu jot nag nii lañ ko defee dañ ko daan defee rek nu ko raw rek lañ ko fas yéene defee ren ndax station day gën a yokk liggéey bi day gën a yokk waaye mbooloo mi tamit ak pas-pas bi day gën a dolli ko rek ba ba ba ba waxtu wu ne eh, bu dikkee day gën a day mujj gën a mucc ayib lañ weesu kon nag loolu mooy eh, tayug sëriñ tayug sëriñ bu gune day day day day gàccal démbam waaw liggéey bi daal yokku na lool ñëpp ñëw nañ murid yi kenn desul ñëpp ñëpp génn nañ kenn ku ne ak nang ca jàppee ñi indi nañ seen i oto ñi indi seen ñaq ñi seen doole lu waaye xam ne boo ko ci jàppee rek mu dox ñëw nga ànd koog ñun loolu si liggéey bi seetaan nuñu si daal seetaan ñu si benn yoon waaw kon nag ñoo ngi sant baax xam nga ne Touba ab la te yaatu na lool te liggéey bi du du du yàgg ba mat juróom-ñaari fan kon nag loolu pas-pas lu toll ni Touba nga liggéey ko si lu matu juróom fan loola da ngay pas-pas la da ngay xam ne kon pas-pas la bu buñ la ko waxee ak buñ la ko wax lépp da ngay xam ne kon ñooña am nañu dogu ña def loolu kon nag ñoo ngi sant baax a baax di ñaan luñ fi amee rek yàlla nañ ko bokk ak mboolem jullit ñëpp rek di ñaan lépp luñ ci amee ñoo ngi sukkandiku ci loolu di ñaanal yàlla nañ ko saa borom tàbbalal ci loxob Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi lool te wér di ko jëbbalaat suñu am ni moom suñu mudu mbenda mu yàgg fi lool te wér ñu ànd ko murid yëpp rek ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm gis nañ liggéey yi weesu yëpp gis nañ seen taxawaay xàmmee nañ leen ràññee nañ leen ndax yàgg nañ ci waaru te ñoo ngi leen di gis gis nañ ni ngeen ñu jàppee tamit gis nañ ni ngeen taxawee jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah, mbokki taalibe yi sëñ maam góor mu mel ne eh, sëñ Cheikh Fall Baye góor mu sëñam di Fall Muudu Mbenda moo ko joxoon kàddoom mu sëñ liw moom la ilaha illallah